mu fuudi Ndakaaru mu bëri démb wane ci boppam gannaaw bi nga xamante ne def na cinq ans wala quatre ans Espagne ñibbi si boobu ak léegi mu def ay jaloore daan may guub daan ànd mu tekki jën kay rek day des Ndakaaru wala du ko des loolu yëpp dinañ ko waxtaanee ak moom waxtaan ci combat bi koy xaar le 4 février digganteem ak Niang Ndaw. Zarko ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare di la félicité bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi.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 non parallèle ak yow mu xooloo ma rëg-rëg ak kii ñi bëri dimanche ñu tudd rëg-rëg bombardier hmm. promoteur moom bu ñu mu defal ñu loolu. non loolu moom dugg ma non mun na ko lépp waxtaan la. ah lépp waxtaan yow. waaw gis nga xam nga boobu nag xam nga waa ji nag bu soxlawee du déglu de. Ah, moom moom ah. parce que amul ku ko jàppale. boppam la yor. amul ku ko jàppale. kenn jàppale ko ñëpp dañuy toog seetaan ko. muy dem ak ak li muy jël ci làmb hmm. Lamine man làmb damay bëri maanaam boog man damay bëri ba pare du ma du ma yor sa xaalis parce que liñ may jox lépp dama koy defaat ci làmb parce que la néew néew jàppale comprendre nga hmm. mais terewul chaque jour dañuy dem ak suñu ngor comprendre nga du ñu wax kenn nag jàppale wu ñu. non non ok Lamine Lamine moom kenn ku ne xam na ne moom professionnel la moom Zarko. Hmm. parce que ñii muy bëreel ñëpp moo leen jiitu ci làmb moo leen gën a miin am na droit dem jëli beneen mais adversaire bi nga xam moom la war a bëreel pour 4 février am nga droit jëli ñaari avance bu la neexee jël rek bu la neexee jël bombardier bu la neexee jël Lac de mais la 4 février moom doo ko échappé sa diggante ak ñaabu ndaw comme ni nga def yow non loolu yëpp loolu yëpp waxtaan la rek loolu yëpp waxtaan mun mun nañu mun nañ si waxtaan ak bi mun nañu may ñu loolu utal ñu beneen adversaire bu mën a man nga wut beneen adversaire bu lay ñaabu ndaw 4 février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 mais man damay jël damay yóbbu kër ga. xanaa changement bi nga gis ci man ragaluma ragaluma mbindeef bu yàlla bind. moom na toll nu ko neex jaaxal jaaxaluma mais xam nga lan moo tax. c'est-à-dire eh, eh, ni ñu koy wax de kër gi dëgëroon rek ci ntàkkul yàlla def loolu ñëw ñu jël ko rek def ko ci biir mais eh, promoteur bi ci boppam muy makan dañ koy ñaan rek man Zarko dama koy ñaan. forcé wu ma xëccoo ma baar de feeru ma su ma rëg-rëg ba mbaar jiyee moom mooy gën rëg-rëg est-ce que mën nga ci rëg-rëg lu bëri benn jóge fa ñëw fii écurie Grand Yoff mbooloo da nga fay jóge mu loolu doonul goon waa des zara Zarko ñëw di prouver mais ñi muy prouver saa su bu leen daanee sénégalais dañuy wax ni bëri dafay feeñ doole dafay feeñ ñu seen morom Zarko du yoon staff xëy problème staff la muy prouver di ci benn xale buy jóg naam ñi ci kaw ñu ngi may xale yi doole eh, chance ñuy bëri mais ñooñu xëy na am nañu ay cachet yu am solo Mhm. Zarko fi mu toll nii dafa yey pour mu lekk ci làmb xaalis donc Zarko est-ce que na ma la ko waxoon ci open presse la na ci ñi nga xamante ne ñooy xale yi te jëm laaj mag ñi mhm. lak dagee da nga war bëri moom am na seen saa kees sa daan am nga droit bëri moom dégg na lépp bëri ak moom donc loolu mooy li nga xamante ni moo fi taxaw c'est-à-dire loolu loolu du wax bi de gars yi si kaw ñoo ma ñemewul pataay pataay si kaw ñoo ma ñemewul saa yi nga la dëgër bi dëgërul boobu de. xoolal fii mu gën a lan ah oh, wax dëgg yàlla. barki moom Modou Lamine Bara moom bu mu def dara moom da ngeen rek taxaw see sànni. mbër mosu ma de déggoo ma de moom bu mu def dara. moom bu na ñëw rek taxaw si si géew bi. kon kese kese kese kese kese laa koy ñaan. ñaan bugguma leneen moom na tax ngemb rek taxaw si digg géew bi rek nice. le premier le dama jëli woon Modou waaw. yàlla na Modou ah, premier janvier parce que moom jëli nañ ko la gauche mu ñaanal la ndam. yaa Modou Lo du bëri ji ngay am yaakaar wala Zarko mu koy veer rek ngay bind. vee mais lëndëm lëndëm bukki far bëy yee Modou Lo du bëy du bëy kenn Modou yee du bëy kenn day daw foofu ngay jaare tàggoo mais techniquement combat waaw miñ tiim xam ne yow gisoo seen signature maa ngi gis ñuy buuxante Modou dafa xàcc rek mu daw taxaw fële <laughs> ah, ah daw kay amul nag dar daw daa am non jab góos la koy def teg day toog. mais techniquement ci combat man nga bëre ñoom ñaar mën nañu bëre. li nga li ma la wax noonu li la wax noonu moom laa lay wax wax xam nga waxoon naa bu bëre booy ñaar daanul Modou Lo. Hmm? bëre booy hmm. Lo. mu daan nag. non bu du Modou Lo la ñu wax roi des arènes king the best. booy ñaar daan ki ko ñaar yoon nga ne yow booy ñaar màgget la daan. buñ sonal waaye. man màgget Balla Gaye Balla Gaye màggatul. Balla Gaye dalaa mun daane. déet génnal foofu génnal foofu ñu ngi sant sant l'ensemble zone 7B de di.